هنيئا لإبراهيم لك هلال هلال بدا للناذرين جماله هلال ربي فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله باي لمي كين كتم جيجينا الله كوكو كينيو نك كينيو كو رك waaye boo ko xeeñee lépp dafay saf waaw nii waaw kay waa caméra yi wax na dëgg baaba la wax na dëgg wax dëgg yàlla neexaay bi moo ci indi waaye nag am na ñoo xam ni dañuy tuddoo baay bëgg li ëpp njëriñ ci baay ñu tàgg ñoo moom te ñu ngi wax fii ci ay youtube yeneen di wax ne bàyyi jotewut dara ak doomam yi ak sëtam yi te dañuy fen ndax bàyyi moo bind ci boppam ne ku ma gis mbaa nga gis samay doom te dégg nañ ci ak seeni doom gis nga ma te dangay texe ngir man wax na feneen sax waaye wax ju laxas la ba mu waxee ne wa maa qataau fi charqi wal garbi fatfadan ila makkatin illa li chami chedaayi xet gaa ngoog te xet googa comme jëmmi bàyyi ja nga xam ne mooy jëmm ju jëkk ja daf ñoo nëbbu jëmm yaa ngi nii baaba la min mii boo ko xeeñee te bàyyi xeeñut la dootul la xeeñ dootu la xeeñ de xet gi romb nga xet gi mbaa xet gi romb na la wa kadalika képp koo xam ni ibnun aw bintun min abnaai cheikh fa cheikhu ibrahim sirruhu fi aalihi waaye nooy mën a jàngee salaatul fatiha ne allahuma salli ala seydina muhammadin daane ko ci aalihi ñoñam nga jàng ibrahima te daane ko ci aalihi kon ngay naxe dama bañ réeral kër yooyu réeral leen ba dog leen ak bàyyi ndax ñii ku leen romb romb nga bàyyi mbaa bàyyi romb na la kon nag nañ fa baaba la min mi am na ñoo dañ ko doon baleel rek daal di fa jaar jaaree rek daal di daanu daal di dee xamu nag dekkiwaat nañ gannaaw gémm déet waaye dee gu baax googu ñëpp ko bëgg waaw kon nag sëriñ bi euh, nañu delloo yooyu fii ca fa mu nekkoon ñu xam ne ñii am nañ loo xam ne bu doon jaay ay milliards buñ ci jot waaw am na ñoo xam ne jaral leen fay milliards ngir ne doomu baay te mënuñ koo dox taxut ñu do ko loolu nga xam ne nag yàlla daf koo maye moom lañ fi dese may dellusi si di wax ne fii ñu toll nii mbirum mbaay wër na àddina anglais yi ñu ngi koy wut te anglais yi pare nañoo fay pour déggu olof mbur buñ déggee waare baay yi baaba la bi doon wax léegi ñu mën ko ñu mën a xam li mu wax lan la xawsa yi noonu almaañ yi noonu français yi noonu soo mbokki naar yi noonu kon nag nit ki lu la jomb mën na laa yomb waaye nag bu mu teree nga xam te nangu ni lii fa laa jomb ñun bàyyi foo waroon a feeñee feneen ñu dugg ay oto ak i avion di dem di ko wuti yàlla baax na mu wàcc fii te ñun kat li ñu xam ci bàyyi mooy li wax ci boppam waaw mu ne wa kayfa la wa ayni l yowma aynu muhammad qad sara sirruhu fi heykali wa riwaay loolu nag am na firiin woo xam ne nangu na ko waaw bu bu bu ma ci jóoma itam ma wax suñ sëriñ bu ma gàggan na bàyyi noonu rek te mooy lan mooy rek maa yónent yónent man ku ma daj daj nga yónent bi ku daj yónent bi daj nga ma du ñaar kenn lañu loolu mooy firi ne xarsara firruhu fii haykali wa riwaayi loolu boo ko doon firi coolo maa di manam maa di moom maa ko jaaxle ana moom bàyyi ngoog yónent baa ngoog sallallahu alayhi wa sallam